العالمين واو الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا احد واو اللهم صل على سيدنا محمد Salatan tu'arifuna biha iyahu Assalamualaikum jami'an Kena kun siyan lain len di nuyu Di nuyu tinggal khaman tetam mom lanyu Tarale kita ibu waye ñu ngi jël nuyo yépp diko jébal cheikh Alhamdulillah. Ma hinda bu ngeen fa do ma hinda Allah baqi. Lolo na ngeen ci baye xal bu baax. Alhamdulillah. Na ñu xamne Maulana Ibrahim ko nay ak ko tayal ak ko ragal do ak Maulana Ibrahim kenn ko ne lolu ci baye xal moy tan ko xeebaatee way jaamu yalla yi bàyyi moytante ko leen xeebaatee yàlla yàlla musal ñu nu dajete gisante wuju ma zaman bi suñu zaman la Mawlana Ibrahim ne na ko yalla natto nga du mom ak du mom ñu bax lañ waye ki ak ki duñ dara ku yóbboo nga tok da ko fenn ci yalla jaamu yalla yi tappaleen yalla nek leen ay jamu yalla ren am kira kiraay si benn jamu yàlla ya ma nekk nekk fale ci ginnaaw mbooloo mi ko xeeb ya ci yàlla bu di yem sa ko taw bi nga toog si taw mën am god dara si yàlla de mu ne Mawlana Ibrahim nahul ken xoolal rek fu bàyyi fekkoon jaamu yàlla ya yi si kiraay bu metti metti metti metti waaye lañu moo dal lan moo tax ñu bañante xoolal rek Ibrahim fu mu la fekkoon ci kiraay bu rey rey fekk fa àdduna bi lépp mu jeexal la si jeex bu ba bu tey rek kiraay baa ngi suñ kanam mu ngi suñ kanam mu ngi suñ kanam alhamdulilah te yàlla bi kenn moomu ko ma ne yàlla kenn moomu ko laa wax leen si yàlla ma ne yàlla amul dara lu dul xarit mané kat ku gorgolu si rek amul dara lu la jëm si ko nak kenn du ko am lu da nga ada maulana ibrahim moy ndiko tapalé man diko tiaxali fess na dalé ci maulana ibrahim boy wax melni omar bin khattab bu tok fekkene yaagi nak kacior tap koy kacior jam yalla ya, yi tapalé yalla ñi bayyi mbu bo maulana ibrahim rek té ñu wax nakul ci ñun waaye waa li fi nekkee est-ce que baa yow loolu la doon def caaxaan yi fees na dell ñu jël ba ko askan Maulana Ibrahim waaw ndax bàyyi dafa ubbi woon ne nit ñi di ko dikkal mën ay borom jindi la ñu koy dikkal ci li gis tey loolu mooy Maulana Ibrahim dañoo xam te dëgg loolu mooy dëgg ma ne bu fekkee ne fekk taxul ko suñ kanam juboo du am mukk suñu diggante waaye nañ xol yi yaatu ba ñu bañante dañuy joxante loxo te nañu bëggante loolu mooy dëgg jaamu yàlla yi nañu teg maandu suñu kanam te bul xeeb kenn ndax loolu dëgg-dëgg dagoon ak kiraay boobu kiraay bu njëkk ba da nga ne dara amul du yàlla dëppale nga ne maa di yàlla xanaa loolu mooy woote bu gën a rey si woote yi ban kiray mo la jappat ak sa ngay bàyyi kenn du ko xam ñu jël lepp ko aj ci mawlana sa faxi waa ñun ñooy ñan jamu yalla yi tapaleen yalla tapaleen yalla nek na ay jamu yalla lolu mawlana sa faxi moo ñu si dimbale xoolal ya, bàyyi na fexé rek waaw ba nga tapo yonent bi yow ak si yonent bi te lolu xam-xam na daa ba àgg si yonent bi rek ak Cheikh Tidiane jant ba àgg Cheikh ak si baye te baye wax ko man la man la lolu xam-xam la muhammadun basarullah kal basar ma huwa kal laquti banal xajar kooku mooy kan dañul mukk laa wax waaw ak si tijaan ci ni jaamu yàlla yi de wa'lamu anna fiikum rasulillah waaw lam yazul nuru bi ayni lillahi intiqali fi kawni ba'da intiqali waaw Cheikh eh, Ousmane Mbow sa biir waxtaan macha allah ñu ngi lay gërëm si waxtaan bi waaw xañ nga Moustapha Moustapha mooy ki ñu tànn de dañu mbokk ñu koy tànn kan mooy Mouhamad Mouhamad mooy ki ñu sant dañul ñu koy sant kan mooy Ahmad waaw sorante wuñ de Ahmad mooy ki sant kan lay sant moo tax euh, xam-xam bi buñ ko noppi bu fekkee ne ñi noppu xam-xam waa lan moo tax yàlla feñal nit te nit mooy jëmu xam-xam oh. moo tax kiraay bi fi nekkoon mooy dafa réer woon boppam bàyyi na ko hee yow yaa fi nekk jaamu yàlla nañu dagg suñu kiraay yi mi du kaala du dara bu rëy du course bu rafet bul xeeb jaam bale laa wax nag si ginnaaw ginnaaw mbooloo bi mel ni du dara fekk wallaahi mën naa am wala gën a kawe si yàlla foofu xam te yàlla jàkka lay doxee loolu mooy maandu waaye bu ñu xeebante waaye bu ñu bañante fajar bi ñoo jot naa ki doon waxtaan te xamat ne moom la ñu jëmale béréb bi ñu ngi ñaan lu fi wax ndax ñun nekkul ne ñun lañuy déglu nekkul ne tam ñun lañuy xaar ci wax waye biñ dajé nañu waxante dëgg lu may dëgg ñu ngi ñaan li fi wax yalla na yalla def ci barké du sama wax lañuy déglu du man la xaar ak no mëna wax rek yow lañuy jël tek ko ci kanam ngir ak no mëna wax rek bu kan ñawal jëmale ci sa wax kon ñu lay ñaan ci la nga wax kenn ku ne rek yalla nga dégg ci yalla te yalla def ci barke ñu ngi ñaan tam jetaay bi yalla yalla def ci barke yalla yalla def ci tam karange mu nak lu sax ndax naga ba sa ngi si ci bassi mané ne melokaan yi feeñ ah dootu fi nag tu dootu feeñ de kenn ko nak tegale bi nga feñ kenn do si feñ te ka mos si de moo tax waxoon naa ne ma ne gars yi dañuy woote maqaama ma ne képp woote maqaama woote sa tur waaye maa di bàyyi rek maa di bàyyi ma ne di bàyyi waaw loolu mooy dëgg nañ teg maa ne suñu sanam bu fekkee am nga xam-xam nag moom feeñalal xam si sa jëmm ma ne feeñalal xam-xam si sa melo loolu mooy dëgg teg maa ne nag si kanam jaamu yàlla yi loolu moom fu ma nekk dinaa ko wax waaw man damaa wax na man damay woote. man bii te fu ma nekk dama ne damay woote waa fan laa woote jamale woote jamale si yàlla ci xalim ci waaye nag sama tur nag mooy Mouhamed Ndiaye waaw loolu moom maandu la ma mu wax mukk man maay rasulillahi wala may maay Seex Tijaan wala maay bàyyi déedéet loolu lu maandu de bàyyi nga ne Mawlana Ibrahim sonn bu mu lu ne sonn na si tukk fu ne dina ay abiyaatam nga jël wooyu Ibrahim da ko asale sa bopp ngir tàbb sa bopp loolu du dëgg ku ko def tappalekat nga ma ne lu la teree sonn la wax jam yàlla yi bu fekkee am nga xam-xam nag bala leen xam-xam si sa jëmu waaw loolu mën a tax nga loolu mën a tax nga wetu Mawlana Seydou Ibrahim waaw ndax lëf lëf dalu na si baatin loolu mooy lan li am mooy mooy awalu baatin moo am ak aaxiru baatin ak saaru baatin ak baatinul baatin boo nee baatinul baatin nag da ngay jëm rek baatinul baatin baatinul baatin baatinul baatin baatinul baatin amul taxaw kooku mooy Mawlana Seydou Ibrahim loolu mooy dëgg kon ala kulli xaal loolu maa ngi teg foofu ndax euh, julli jot na kenn ku ne si nag maa lay nuyu di la jox loxo waaw maa lay kenn ku ne laa wax góor jigéen bu fekkee ne sax jigéen teew na ndax moom jigéen moom waxoon naa ne ma ne yàlla amoon jigéen moo tax bu muy melal Adama Adama la mel rek jal di jal jigéen nag melal ko si Adama moo tax jigéen. mu ngi tukkee ci góor góor nag mu ngi tukkee si jëmu yàlla ji waaye nag boo ko firee ma ne góor mu ngi tukkee si nit lan mooy nit alhamdulilah kon ñu bari a guddal rek foofu di gërëm yàlla bu baax di ñaanal Cheikh Omar ama sama soppee ma yegg ko sama xol ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax bul am benn kiraay si yàlla waaw yalla bi kenn momu ko góorgóorlu len nañ bëgg Mawlana Cheikh Ibrahim waaye bu weddi sa zaman bu la di yonent bi góorgóorlu len xolal jàppale bi fi nak rek yow ya, sa jamm jaamu yàlla sama yalla yàlla góorgóorlu xamal len kat ku mabal jamm yalla rek mabal nga islam waaw lool moy dëgg kon mbir mi dëgg la la war a doon yow te sa wax nañ mu roog say jëf waye ñaw na sa abou jamm ni ngay wax ak ni ngay jëf du ben lolu ñu ngi ñaan ci lolu yalla yalla musal ci lolu waaye jamu yalla yi bu len am par par si yalla nah, bu lu xol ko la na rek na ne kii laa faral ma daa bàyyi nee na ku soxlawul dara ci yalla na xol ko la neex nga ne sa sa bu ba yow ya do taalibe ki nga japp sëriñ na do sëriñ bo ak ah, da rek ko fi nekk waaw alhamdullilah kon na ñu ngi nuyu ko la mi ñëpp ya, ñu la di nuyu waaw jël nuyoo bi di ko teg si Cheikh Omar waaye say amatam dafa am nit ko amat ne mooy buntum mooy bàyyi bàyyi taala ñu ngi lay nuyu bu baax ndax eh, ñam nga suñu makkaan mooy Kër Moussa lay nuyu tam waaye bi ñu nuyu sa Omar rek nuyu nañ la alhamdulilah ci loolu képp ku fi teew nag ñu lay di nuyu ne nag xëy na minante di nuyu tam Seex Ousmane mi tasa nañ fi daaw tasa nañ tam Seex Xotaan ñu ngi lay ñaanal yàlla baax ci lépp loo nekk rek yal na yàlla def ci ngërmande ku ne suñu nag yal na yàlla gërëm la te képp ku ne si dëgg rek nañ dem si kanam dana leen loolu ñu ngi koy ñaan kenn ku ne suñu nag yal na yàlla def ay jaam yàlla yu tegu ci ñu nekk alhamdulilah alhamdulilah allahumma salli ala sayyidina muhammadin alhamdulilah